ñu mbas mi ganesee ñaari fan ci weeru mars ak na muy wàllee gaaw lool la autorité sanitaire yi digal rek askan wi ay matukaay maanaam na nga xamante ne ni wax nañ koo doxee ngir moytandiku lii di feebar bi si loolee nag bokk na si takk masque yi si anam bu mucc ayib ngir rek dara bu bañ a jógee ko ci keneen ñëw si yow si noonee nag ñu gisoon fi rek tamit ñu amal fi état d'urgence lépp ngir xeex mbas mi ba askan wi génnee woon nag di amal manifestation urgence bi di xam le ne dañ see tàyyi da ngir rek euh, a delluwaat seen liggéey yi euh, ca ëllëg sa la ñu amal ay mesures d'assouplissement maanaam yolomal yenn ya nga xamante ne ni dañu ko doon tere waaye nag lu ñeel takkub masque yi dañu koy exiger ba tey donte sax nit ñi mën nañoo dem ci diggante dëkk ak dëkk dem ca marché ya ak li waaye nag euh, ñu ngi naan ku si nekk rek da nga war a takk sab mask ngir nag saytu bu baax a baax askan bi mba wa ilaa def loo ba takk der yi di wàcc ci yenn lieu public yi eh, ngir rek eh, xool ba xam ndax askan waa ngi jëfee li di takk mask yi eh, lu ko moy rek ñu daal di lay ramas yóbbu la ca marché jox nag ña fa nekk di fa yëngu dañoo bañ rekk ne ñett ne takk der yi duñ leen jàpp ñoo sax ñi si takkul masque ba leen tegee loxo dañoo bañ rek ne duñu dem ca autopolis ba ngir rek loolee ñu leen di toppee mbir minimel ni mel nag tax rek ba ña fa nekk dal di génn comme ni ngeen koy gisee noonu mbooloo bu takk lool di dox ñaxtu euh, si la nga xamante ne nii rek police yi ñu ngi leen si ramasse te dara waralu ko dudul takku ba masque yi. waaw fii ñu nii marché Dior gars yi police yi ak gars yi ñooy xeex dañuy ramasse ñu ngi ay ñu sol masque yëpp gars yi nii di xeex waaw police yi ak gars yi ñu leen di ñu ngi nii marché Dior waaw. gaa ngi xeex nii waaw ak police yi waaw. xeer yi waaw métti na trop vraiment ngeen bëgg yóbbu ñu bañ quoi